al ibaadatu wal xidma di jaamu yàlla ak liggéeyal lislaam bismillahi arrahmani arrahim alhamdulilahi rabbil alamin wa sallallahu yi suñu jotaayu fukkeel ak ñett faral di teg ci taabali ndogu li tey dañoo bëggoon a ñëw ak yéen ci màggaayu guddi laylatul xadri xam ngeen ne bokk jullit yi fi ramadan toll nga xam ne ñu ngi daanaka dem ci xaaj bu mujj bi di jeexal ñaareelu xaaj bi yaakaar yàlla sunu borom tabaraka wa mu boole nu nangul laylatul xadri nag doon na guddi koo xam ne ni ko alxuraan waxee rek bari nay ngëneel lool xayrum min alfi danañ lim ci ngëneel yooyu ay yennati yennat ginnaaw bi nga xamante ne sori nañ lool ci biir weeru koor wi ñaan yàlla suñ borom mu boole nu nangul waaye mu fulandil nu lépp loo xam ne def nañ ko ci ci xeeti jaamu yàlla ci xeeti taxawaay ci xeeti jàng alquran yàlla saa boroom defal nu loolu ñu ngi koy ñaan yàlla sunu boroom yàlla mën na ko yàlla nu ko yàlla defal bokk yi laylatul qadri yàlla sunu boroom gënal ay guddeem ci mbooleem guddi yi ci ay jagle yoo xam ne am na ko bokk na ca ba ca jëkk mooy laylatul qadri guddi la goo xam ne ci la alquranul karim wàcc sunu borom nee na inna anzalnaahu fi laylatil qadr sëriñ bii di wasilata bnil ashqa radiallahu anhu nee na yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na unzilat suxuf ibrahim sallallahu alayhi wa sallam fi awali laylatin min ramadan ibrahima jox nañ ko téeréem ca ba ca guddeem gu njëkk ga wa unzilat tawraatu li sittin madayna min ramadan tawraat di lañ joxoon yonte yàlla muusa alayhi salaam ñu ngi ko wàcce ci ba weeru koor rombe ba mat juróom benn fan والإنجيل لثلاث عشرة xalat min ramadan injil mooy téere bi yonte yàlla isa alayhi salaam yoroon daan ci jàngat kàddug borom bi tabaraka wa taala mu jëm ci ay jaamam jébbal nañ ko ko ba weeru koor amee fukki fan ak ñett wa unzila alfurqaanu li arbain wa ishrina xalat min ramadan alquran jox nañ ko sayiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ba weeru koor amee ñaar fukki fan ak ñeent xadis boobu imam ahmad solo na ko sëriñ bii di cheikh albani rahimahullah wéral na ko ñaanal ba ci ngëneel yi laylatul qadri laylatun mubaraka laylatu xadr guddi gu barkeel la sunu boroom yàlla nee na inna anzalnaahu fi laylatin mubaraka wàcce nañu alquran ci guddi gu barkeel loolu mooy laylatul xadri xayru min alfi shahr ñetteel ba ca ngëneel ya laylatul xadri guddik yiw la guddig dotti aw yiw wu jëm ci jaam yàlla yi sun borom nee na woon wa ma adraka ma laylatul qadri laylatul qadri xayrun min alfi shahr yow yonent bi sallallahu alayhi wa sallam noo xamee laylatul qadri laylatul qadri day guddi la goo xam ne aw yiw la feese jaamu ci yàlla ci genn guddi googi moo ëpp doole jaamu yàlla junni weer junni weer nag boroom xam-xam lañ ko nattale ci juróom ñaar fukki at ak lës akus lëf wala boog juróom ñett fukki at yu manqué tuuti loolu yi day jaamu ca yàlla guñ la nangul jaamu yàlla ci guddik laylatul qadri moo ko gën a foor fuuf anas bnu malik radiallahu anhu sëriñ bu baax boobu mi ngi nettali mu ne daxala ramadanu fa qaala rasulu ullahi sal allahu alayhi wa sallam in hada alchahra qad xadarakum wa fiihi laylatun xayrun min alfi chahrin man xurimaha faqad xurim alxayra kullah wala yuxramu xayraha illa maxrum anas mi ngi ñu nettali sëriñ bu baax boobi mu ne ramadan dugg si na yonent bi sallallahu ne leen weer wii egsi ci yéen ngeen teewe ko na ngeen xam ne guddi la goo xam ne moo gën jaamu yàlla guñ la nangul junniy weer nee na kuñ ko xañ daal xañeef na la aw yiw nag wépp ku ñu xañ taxawaayu laylatul xadri xañ nañ la yiw yépp maanaam daal amoo dara kon daal duñ ko xañ kenn ku dul koo xam ne xañu na xadis boobu ibnu maaja solo na ko sëriñ bu baax bii di seex albani rahimahullah wéral na ko laylatul qadri guddi la goo xam ne mën nañu wax laylatu taqdir assanawi guddi la koo xam ne ci la ñuy nattalee mbir yi nga xam ne nag dafay jëm déwén def évaluation fiiha yuqaddaru allahu al arzaq wal ajal wa xawadis al aalam kulla qaala taala fiiha yufraqu kullu amrin xakimin sunu borom yàlla nee na guddi googu kat ca la mbir yi yi jëm déwén jëm déwén yi ñuy nangu ñu nangu ko ya ñuy defale yépp ñu defe ko bokk na ci loolu laylatul qadri guddi la goo xam ne jàmm ak barke daj na ca këpp tax man yaqum laylat alqadri imaanan wa ixtisaaban gufira lahu ma taqaddama min dambi xam ne taxawe nga weeru koor sunu boroom yàlla jéggal na la sa mboole mi bàkkaar yoo ma soon a def bi nga xam ne moo ci mujj ci ñu wax ci ngëneel yi laylatul qadri laylatu duaa guddig ñaan la sunu yaay Aïcha radiallahu anha qaalat qultu ya rasul allah araayta in calimtu aya laylatin laylatu alqadri ma aqulu fiha qaala quuli allahumma innaka afuwun tuhibu alafwa fa afu anni ya Aïcha radiallahu anha dafa wax ne damaa mas a wax yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko yow yonent bi yàlla bi ndax bu ma jàppee na walla ma xam ne tey jii mooy guddig laylatul xadri waa lu may wax yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko na ngay wax ne allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni yàlla yow day ku mën a baale nga ku mën a jéggale nga te bëgg nga lool ku la balu kon yàlla nag ma baal yàlla nag ma jéggal xadis boobu Cheikh Nasiruddin al Albani wéral na ko ci saxiixam mbokk yi bu ñu bokkee jàngat li dañuy gis ne kon guddee ngi bu am solo goo xam ne daanu ñëw ci fañ ko war a dàkk ak nañ ko war a taxawe laylatul xadri yonent bi aleyhi salaatu wasalaam nee na nañ koy dàkk ci bis yii ci waxtu yii mu am ay màndarga yoo xam ne saxaaba yi ridwanullahi alayhim ajmaina xamaloon nañ leen ko yonent bi alayhi salaatu wasalaam xamoon na ko waaye itam màndarga ya xamoon nañ ko ànd ak loolu yépp it ñu lëm ko ci biir fukki fan yu mujj ci biir weeru koor comme ni ñu lëmee waxtul ijaaba ci bisu àjjuma comme ni ñu lëmee salaatul wusta ci julli juróom yi noonu lañu ñu lëmee laylatul qadri ci fukki fan yu mujj yi ci weeru koor ngir yërmande yàlla sunu borom tabaraka wa taala yërmandeem ji yaatu ji xadis biñ ci njëkk a jàng sëriñ bii di abu hurayra radiallahu anhu nee na anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaal uriitu laylata alqadri summa ayqazani bacdu ahli fa nussiituha faltamisuuha fi lashri algawaabir Abu Hurayra moo ñu nett li mu ne <coughs> yonent bi sallallahu alayhi wa nee na wanees na ko laylatul qadri maanaam gént na gis ko waaye ci biir gént gi ñenn ci waa këram yee ko biñ ko yee nag mu fàtte nuñ ko ko wane woon waaye daal mu wax ne na ngeen koy sàkkoo di nimmiku ci fukki fan yi nga xam ne moo des ci weeru koor boobu benn xadis la ñaareelu xadis bi yaa Aysa mu ñu li mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na taxarru laylat alqadri fi lwatri min al ashri min ramadan yaa Aysa moo ne kat nanuy dàkk di nattale alqadri ci bis yu tool yi fukki fan yi mujj ci weeru koor ñetteelu xadis bi ibnu umar radiallahu anhuma ann rijalan min asxaabi annabiyi sal allahu alayhi wa sallam uru laylat alqadri fi lmanaami fi lsabci alawaaxiri fa qaala rasulu llahi sal allahu sallam araa ru'yaakum qad tawaata'at fi lsabci alawaaxir faman kaana mutaxarriyaha falyataxarraha fi lsabci alawaaxir Abdullah ibn Omar radiallahu anhuma yal na yàlla gërëm leen moog waajuram baayam Omar ibn al-Khattab nee na aw gaay ci waa àndandoo yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wane wanee soon na leen laylatul xadri gént nañ gis ko waaye fañ ko gise nag ci juróom ñaari fan yu mujj yi ci weeru koor yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne leen ah gis naa ni day seen gént googi dëppoo naag dëgg ah, waaw loolu ngeen gént ci juróom ñaari fan yu mujj yi ci fukki fan yu mujj yi ci weeru koor dëppoo naag dëgg de képp koo xam ne daal yaa ngi koy dàkk di ko nattale na nga def sa dàkk googi ak nattale googi ci juróom ñaari fan yu mujj yi ci weeru koor ci fukki fan yu mujj yi hadal hadis rawahu imaamul buxaari muslim yàlla na yàlla boole yërëm ñeenteelu xadis bi mbokk yi mooy yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci sëriñ bu ñu jëlee ci moom muy abdullah ibn unays anna rasulullah sallallahu alayhi wasallam qaala uriitu laylata alqadri summa unsiituha wa araani subhaha asjudu fi maa'in wa tiinin قال فمطرنا ليلة ثلاث وعشرين فصلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فانصرف وإن أثر الماء والطين على جبهته وأنفه وكان عبد الله ابن أنيش يقول ثلاث وعشرين حديث الإمام مسلم صلى الله عليه وسلم li mu nettali mooy nee na yonent bi gént na ñu wan ko laylatul xadri fum mu toll waaye ma fàtte ko mais gis naa ne nag ci gént gi li ma ca fàttaliku gis naa ne ci suba gi maa ngi sujjóot ci bàq ci tooy tooy gannaawub taw Abdullah bin Unays mu ngi nettali mu ne ba ñu demee ba guddik ñaar fukki fan ak ñett ba léegi yu tool yaa ngoogu de fa mutir naa saa borom yàlla wàccem ndoxam taw yonent bi alayhi salaatu salaam jiite nu julli julli fajar fan sarafa bi mu walbatikoo julli ba noppi ñu xool jeexintali ndox mi ban bi takk ci ab jéem ak ci bakkanam moo tax abdullah ibn unays li mu daan wax moom day wax ne laylatul xadri daal nañ ko dàkk ci ñaar fukki fan ak ñett est kon mbokk yi lan la ñu mën a bàyyi xel ci xadis yi ñu wax ni lan lañ ci mën a bàyyi xel bu njëkk bi mooy laylatul xadri la shakka ne ci tegtal yi ñu jàll ñi ngi koy fekk ci asrul awaaxir te mën naa doon ci bis yu tool yi ñaar fukki fan ak benn ñaar fukki fan ak ñett ñaar fukki fan ak juróom ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ñaar fukki fan ak juróom-ñeent yooyu daal du ko génn moom laylatul xadri ñaareel ba mooy laylatul xadri nañ jàpp ne ci nattale yi ñu weesu ak waxi ku tedd kii ñu romb ne laylatul xadri ci guddi yu tool yi ci la nekk rawatina ci juróom-ñaari fan yu mujj yi ci fukki fan yu mujj yi ci weeru koor waaye ñu xam ne laylatul xadri yàlla baaxe na ñenn ci ay jaamam wan leen ko ci seeni nelaw waaye loolu yépp it lañ wax ñoom génnul fukki fan yu mujj yi ci weeru koor rawatina bis yu tool yi comme nag laylatul xadri dañ koo lëm ci biir guddi yi comme ni ñu lëmee salaatul wusta ci biir julli juróom yi waaye saatul jumaa moom itam ñu lëm ko ci biir waxtu bisu ajjuma bi noonu kat la laylatul xadri mel kon nañ koy dàkk loolu yépp ci yërmande yàlla sunu boroom ji tabaraka wa la bàyyeekoo ngir jaamu yàlla bi mën a far lu mën a bañ a gàttañ lu ndax kat bu ñu nattalee ne bi sàngam la kon balaay ñëw duñu ñu góorgóorlu dañu xaar ba bi sàngam jot ñu door a góorlu te bu rombee itam nag mën naa am duutuñu góorgóorlooti nattale googu nag moo tax ab jaamub yàlla war a mën a góorgóorlu ba diir bi sallallahu sallam wax ne ci la daan góor góorlu bu baax a baax a baax ngir dàkk leelatul xadri nun tam nan def noonu ngir sàkku ngërëm waaye ngir sàkku itam am tuyaaba ju dul jeex ci biir weeru koor wi yaa Aysa mu ngi li mu ne kaana rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yejtahidu fi al-ashri al-awaaxir maa laa yejtahidu fi gayrihi Aysa nee na kat daana gis ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fukki fan yu mujj yi moom bu ma saan dugg si moom daana def effort yoo xam ne daawuñ ko woon gis ci fan ya ko jiitu mu dee la nit li mu ne kaana rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ida daxala al-ashru axya al-layla wa aygasa ahla wa jadda wa shadda al-mi'thar muttafaqun alayhi nee na kat yonent salaam alayhi yaay sa moo ñu nettali ba léegi de nee na day boo fan yi ci ramadan masaan dugg si day dundal guddi waaye ànd koog waa këram bàyyi loo leen ko xel waaye farlu laxasaayu takk ndiggam taxawee guddi yooyu nga xam ne mooy guddi pour sàkku laylatul xadri yàlla na nu yàlla dajaleeg laylatul xadri te yàlla nangul nu te yàlla def noonu gën a mën a sawar gën a mën a màng mbooleem guddi yi nga xam ne moo aju yépp ci fukki fan yu mujj yi rawatina ci bis yu tool yi innahu waliyu zalika walqaadiru alayhi yàlla nu yàlla defal dégg ak topp boole ñu ci ñi nga xam ne yastamicuuna alqawla fa yattabicuuna axsana ulaika allazina hadaahum allahu wa ulaika hum ulul albaabi fa baraka allahu fikum